bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maa ngi tàmbale samay kàddu ci turu sun borom di wax bismillah di sant sun borom di julli di sëlmal ci ab yonantam ak i ñoñam ak i saxaabaam ak képp ku méng moom ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu nuyób lislaam ñu ngi koy nuyu mboolem ku nekk ci kappa keppaangook salaatu xala ak képp ku kuy dégg sunu kàddu ku sunu kàddu di agsi ci yow ñu ngi lay nuyu nuyób lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu am mbégte ñëwaat ak yéen ci lenn ci njariñal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tey nag dañuy ànd ak ci li sëñ indi ci masaalikul jinaan ci njariñal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sëñ bi dafa njëkk wax ne màggal nañ basmala basmala lu màgg la xaw xala lu màgg la kàbbar lu akbar alhamdulilah moom itam noonu xasbala moom itam noonu waay xul wasalaat wasalaatan wakasaaka xasbala ba tey julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam noonu la màggee ak xasbunallah wa nihmul wakiilu ak astaghfirullah mu ne nag bépp a doon ci am na ay njëriñ yoo xam ne moom rek moo ko jagoo am na ay secret képp ku ci ñii am na meññit boo ni moom lay jural. ba mu agsee ci nag salaatu ala nabi te mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wax ne amma salaatuna ala nabi alayhi aska salawaatil hayyi fa shiddatu shawqi lahu ma attibaahi sunnatihi samratuha wal intifaa sëñ Tubaa nee na julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama boo ko dee baril day waral ngay gën a sopp yonent bi meññeetam daal mooy nga gën a sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nag xam nga ne sopp yonent bi ci la lépp nekk ndax ku sopp yonent bi bëgg ko ba mu gënal la sa bopp gënal la sa ndey gënal la sa baay sa gëm yàlla matagul faw nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gënal la lépp ba sa jëmmi bopp ba ci say waajur ak say doom sa gëm yàlla soog a mat Seydina Omar ibnu Xataab radiyallahu anhu mas naa wax yonent bi yaa ma gënal lépp ba des sama jëm bopp yonent bi ne ko kon sa gëm matagul balaa ngëmu kenn mat man yonent bi ngay gën a sopp ci lu mën a doon ba sa jëm bopp Omar ibn Xataab ci ne ko bëgg naa la ba yaa ma gënal lépp ba bopp mu ne ko alaana kam kamu la kamu la imaanu ko yaa Omar ah kon nag léegi sa yow Omar sa gëm yàlla mat na kon nag loolee nga xam ne mooy tax sa gëm yàlla mat loolee nga xam ne mooy tax sa gëm yàlla mën a mat loolee lu lépp lu koy maye lu rëy la lu màgg la te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa bokk ci meññeen wi da ngay am cofeel gu tar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yemul foofu de ma attibaahi sunnatihi samratuha wal intifaa sëñ Tuubaa nee na booy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day tax ngay topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ngeen ne topp sunna kat ci la lépp nekk ndax bépp jëf lum bare bari bari faaw ñaar am ca ñu soogoo a nangu jëf ja ñaar yii rek bu ci benn bu ci manqué jëf ja du nangu te mooy jëf ji faaw nga jëf ko selal ko te mooy nga jëf ko ngir jëmmi yàlla képp rek dong bi ci des mooy mu tegoo ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day tax say jëf ñu nangu ko te mboolem lépp lu baax mi ngi ci topp sunna mbooleem ay yëpp mi ngi ci euh, topp bi daal loolu Sëñ Tuubaa wax kon julli ci yant bi sallallahu alayhi wa day tax a am cofeel gu tar ci yonent bi waaye day tax nga topp sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit day tax nga gën a jariñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon julli ci yonent bi yooyu yëpp dafay maye waaye nga ñëwaat ci masaalikul jinaan ba tey sëñ bi jàllaat ak yow waxaat ne amma salaatuna ala nabi muhammadin xayri bani luy fa hiya ajallu ma tamassakta bihi baada adaa'il fardi fan faltantabi nee na julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ndaal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mooy gën gi mooy gën gi li ngay jàpp mooy gën gi li nga jàpp ginnaaw farata yi soo joxee farata yàlla ba noppi li gën ci li ngay def mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi kon nee na ginnaaw julli juróomi ak lépp loo xam ne rek farata la sunu borom farataal ko ci yow bu loolu jàllee lépp looy jàpp julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gën a màgg moo ko gën a rëy noonu la ko waxee de fa hiya ajallu ma tamasakta bihi far baxda adaayil fardi faltantabih gis nga baatu faltantabih boobu nag lu am solo la waaw lu am solo la li mu bëgg a wax rek mooy comme xam nga ne ginnaaw boo joxee farata yi li gën a màgg ci li ngay jàpp mooy julli ci bi kon nag yeewul nag bay julli ci bi loolu mooy faltantabih bi mooy kon nag yeewul comme que wër na joxe farata yi lii moo gën a màgg kon jàppal ci li gën a màgg loolu mooy faltantabih lu mu ca tegaat moom sëriñ bi mu ne ku ñuy wax euh, Sanusi yaxal na bind na ci texte yàlla na yàlla gërëm ko moom imaamu Sanusi moomu diirub jamono nee na moom julli ci yont bi sallallahu alayhi wa sallam doy na doy na sëriñu bi yar bi annaha tugni an il murabbi li jasbihi l fata li xurbil xibbi moom kat doy na walif asseyxul murabbi waaw li sëriñ buy jaare di def lool lay def ñu ne ko xamal tax mu ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi sallallahu te nag mbir mi kat mi ngi ciy gën mi ngi ci jege yonent bi sallallahu alayhi wa mbir mi mi ngi ci jege yonent bi sallallahu alayhi wa mbir mi ci loolu la nekk te julli ci yonent bi loola lay def mooy dalay jegal yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu mën a wuutu sëriñub seyxul mu rabbi ndax foofu la yem mu ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama day tax ñu far say bàkkaar day tax ñu far say bàkkaar ba dootoo dese benn bàkkaar lu ko gën a gaaw gën koo màgg ci far bakkaar moom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul te day tax sun borom suturaal la say ayib day tax sun borom suturaal say ayib suturaal say difa sëñ Tuubaa nee ba tey day tax nga am fajug aajo waaye tamit mi ngi mel ne goreel ab jaam ci tiyaabo loolu mooy wa annaha kal itqi fi l ajri kama taqdi xawaaija allazi lahantama waaw julli ci yonent daal day suturaal ayib day tax ñu jégal say bakkaar day tax nga am yoolam ko goreel ab jaam ba noppi day faj say aajo yemul foofa de ba tey nee day àggale jaam bi àjjana di ko sori sa loolu rek bu ko amoon ci njariñ rek doy na sëkk luy taxa dugg àjjana di la dàqal sa wara loolu na sëkk wa tuusilul abda ilal jinaan xadan wa tadfau ani niiraan waaye wa annaha tunawiru sawahira ala ittifaaqil xawmi wa saraira sëñ Tuubaa nee na ca masaalikul jinaan julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama day leeral sa aaxiru nit ki ak baatinam day leeral sa apparence ba nga mel melawu jekk wu rafet ku la gis xemem la waaye defar sa baatin defar sa intérieur defar sa biir defar li bu ci yow nga am ba mboolem jikko yu tedd jikko yu màgg yëpp ne ci yow ba ku la jëflante yow gën laa sopp gën laa bëgg nga xam ne ku la seen gis la rek bëgg la waaye bu jaxasoo yow gën laa bëgg ndax tedd ngay jikko yi ak sa sa sa biir gi defaru te sëñ Tuubaa nag neen li lii nag ala ittifaaxil xaw mi mboolem gaay yëpp mboolem nitu yàlla yëpp mboolem ñëpp ñoo ci dëppoo ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day leeral sa zahir di leeral sa di nëbb ci yow ba tey it sëñ day waral ëllëg nit ki am ramm yonent bi day waral bu ëllëgee yonent bi ramm la képp kuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sun borom képp kuy julli ci yonent bi bis penc yonent bi mooy ramm wa annaha tujibu yawmal haqqi shafaatal muxtaari xayril xalqi ci lu amul benn werante képp ku ku la kuy julli ci yonte bi bu ëllëgee aa day tax nga am ràmm ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam takat bi wax na ko sax ne awla naasi bi yowmal qiyaamati aksaruhum alayya salaatan ëllëg daal yowmal qiyaam ci gën a yey ci man mooy ku ëppoon lim doon julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallama hadis boobu Tirmisi yi moo ko indi jëlee ko ci Ibnu Mas'ud kon gis nga bi noonu sëñ Tuubaa nee na nag euh, julli ci yont bi daal li mu am ci ay njariñ nee daal kuy dajale faat na mu mën koo dajale fii ak ëllëg muy àddina ak àlaxira daal ciy teg wax ju am solo fa kullu man aadaamaha fi kulli hiinin fa innahu axasa bil xabril matin alhamdulilahi rabbil alamina sëñ Tuubaa nee na képp ku saxoo julli ci yont bi sallallahu alayhi wa képp ko sax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa na xam ne moom daal jàpp na ca buum gu dër ga jàpp na ca buum gu dër ga téye na lu wóor fa kullu man adaamaha fi kulli hiinin képp ko saxal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci waxtu wu ne fa innahu naka moom moom nga xam ne daa sax di julli ci yonent bi ci waxtu wu ne axasa ngooy na jàpp na téye bu dëgër ñu ne ah mun a bil hablil matiin ci buum gu dëgër ga kon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu waaye taxul sëñ Tuubaa yam fa de nee na sëñ Tuubaa nee na am na téere bu ñu wax euh, nafu tiib nee na téere boobu hmm, bu gàtt la te bool ne mboolem li nekkoon ci ci yeneen téere yi koy jàng nga saxal ko texe na ndax moo koy fegal lépp luy am tiit ëllëg tuubaa li man yaqarahu mu abida li annahu yakuful hawla xada nee na lu mel ne dara ilu xalaat nag kenn waru coo yokkat kenn waru coo yokkat benn waxtu moom itam téere bu doy waar la ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néew na nit àgg ci yàlla te doo ko jàng lépp looy jàng nag di ci wut xaajo ju faju téere bu ñuy wax alkunuus moo ca gën téere bu ñuy wax alkunuus moo ci gën am na ko ñu wax am na dog mu def ci julli ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam bépp taalif woo taxool maam am na téere mu def ci julli ci bi sallallahu alayhi mooy la gën ca ne nit ki di sàkkoo lam bëgg kon gis nga sëñ bi indil nala ay téere yoo xam ne nii ñu ko taalif tagg ko waaye moom da defar na ay téere yu am solo ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel ni muqaddamatul xidma nga xam ne lu ko gën a gaaw ci jox joxasoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul waaw ci nett le bu wér sëñ Saaliw nee na muqaddamatul xidma toog benn place jublu penku jàpp ba set jàng ko mi ngi mel ne fekk satala gu baax nga ne ko sëcc naan na tekk ba ci yàgg mu ne waaye waa ah, ku def loolu fa nga fekk fa nga toog ku la fekk mu jox la loxo su waatee ne yonent bi la jox loxo du ko kafaara Serigne Mouhamadou Ndiaye Hizbul Abraar mu nett dama ko ak ñeneen ñi bari bari ñu nangoo ko ci ñu gémmiñu Serigne Saliou muqaddamatul xidma nga xam ne lu ëpp juróom-ñetti téeméeri salaatu ala nabi mang ca téere bu doy waar la bari na ñu ko jàng ñoo xam ne bañ ko jàngee lañ gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaye muqaddamatul kubra fi salaati alal busra moom itam mi noonu nga xam ne sëñ Tuubaa nee na bépp araf ci xas ci téere boobu ko def mu nekk ngërëmal yàlla la gën a màgg allahu akbar fathul xafaar fi salaati ala mahin absar nga xam ne moom mm, téere la boo xam ne sëñ Tuubaa ko bind moom itam moom lu ko gën a julli ci yonent bi rek moo ci nekk dafa gaaw ci far bàkkaar waaye naka noonu eh, jaalibatul maraqib moom itam gis xam nga ne julli ci yonent bi la taysiirul xasir julli ci yonent bi la eh, mafaatul bisri julli ci yonent bi la nga xam ne mafaatihul bisri boo ko jàngee ba noppi rek képp koo jox loxo sunu borom jéggal ko boo ko jàngee ba noppi da ngaa mel ne lii yonent ci ñàkk bàkkaar yooyu yëpp ay xasida la yooyu Sëriñ Tuubaa moo ko defar yooyu yëpp moo ko defar bi sëñ bi nag di defar masaalik yëpp sëñ bi da koo def defaragul woon woon booba taarifagul muqaddamatul xidma ndax muqaddamatul xidma sëñ bi mi ko woyee Tuubaa masaalik bi sëñ bi mi ngi ko wayee Mbàkke Bawol ak yeneen ak yeneen sax waaw gis naa sax benn téere boo xam ne ni xam naa moo la ko de waaye téere bu ko gën a neex ci salaatu xal ni bi uh, moom kenn mësu koo gis man am naa ko gis nga les quatre-vingt-dix-neuf de Dieu juróom-ñeent fukki tur yàlla yi ak juróom-ñeent tur wu ci ne yàlla si sëñ Tuubaa jël na ko tëgg ci ak salaatu xal ni bi ba téere ba jeex ci allah la ko tàmbalee ba turu yàlla yi gën a mujj bu ci ne sëñ Tuubaa tëgg ci ak saartan bi téere bi loolu noonu la mel yàllaahu yaa rahmaanu ya rahimu tur yooyu yëpp tur bu ci ne sëñ Tuubaa na ci tëgg na ci ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko dee jàng moom doo ci doyal moom téere boobu macha allah yàlla ñu yàlla fayal sëñ Tuubaa julli ci yonent bi nag day alalu sëñ Tuubaa de sëñ Tuubaa nee na julli ci yent bi mooy sama patrimoine julli ci yent bi mooy sama ruwaayam milki mooy mulki léppam julli ci yonent bi la moom Sëriñ Tuubaa julli ci yonent bi xasida julli ci yonent bi moo waral mu dem ci géej ga ba mu demee ci géej gi bokkoon lam doon liggéeyal yonent bi la ci gën a màgg julli ci yonent bi la ak tagg ko Sëriñ Tuubaa nag nee na bépp taalif woo jël ci yi doon muy alkunus nufsatul xutbul wali abdusalaam euh, dalaa ilu xayraat nafu tibi bépp boo ci jël taqoog moom ah mën nga caa amee danga nga bëgg ci ay xéewal ndax kilifa yi leen def borom may lañu waaw ñoom ñëpp géej guy gu fees del lañ is kullu waxidin min al musannifiina bahrun yafuuru mawjuhu fi kulli kon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu doy na walif ab sëriñ ni ab sëriñ di def bu mat ba àgg la ci yàlla noonu lay def dalay tax a jegal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon yàlla ñu yàlla saxal ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dara gënta màgg nag xasiida yi sëñ bi def muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nga xam ne nga xam ne euh, li ëpp ci mbindum sëñ bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moom la xase xasaayid julli yi kenn kenn xamul nu mu euh, toll yu bare bare la muxadamatul xidma bii am na beneen muqaddamatul xidma boo xam ne euh, salaatu yi ci nekk yëpp sëñ bi mi ngi ko jeexale yàllaahu am na muqaddamatul xidma yu bare bare ñoom am na sa muqaddamatul xidma boo xam ne salaatu ga ci nekk yëpp yàllaahu lay jeexe am na muqaddamatul asuxra an nasmiya ak muqaddamatul xidma asuxra yooyu yëpp am na ak yeneen téere yoo xam ne mënu fi ko tudd fii te lépp nag julli ci yonent bi képp rek moo ko taxa jug bu dee nag euh, mu faatul bitri moom euh, moom gépp salaatu guñ la wax gépp julli bi sallallahu alayhi wa la wax lum màgg màgg lum rëy rëy rëy ah moom mu faatul bitri mën na ko wutu day mel ne moom senteesu salaatu ala nabi yëpp la moom boo ko jàngee day mel ne jàng mboolem salaatu alan nabi yëpp sëñ bi nee na fa ayima laa samta mis min si salawaati fa anta taxtawi bihi xayra silaati nee na salaatu salawaat yi bépp boo ci taxoon rek li nga bëgg mën nga ko ci am kon loolu doy na sëkk kon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ngi noonu yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu